téléphone bi c'est le 77 219 99 99 le 77 219 99 99 Serigne Daouda Seck sa coono daal di jeex. maa ngi seen fërus bu jàmm gën tay seen dë noonu coto bi toog tay seen dë noonu toog mbër maa ngoongu toog sol mbaxanaam mu xonq ci loo ne yaa ngi kuul oui maa naka yëngu yi lii rek doo ci kawam yaa ngi da fi mu ne pare nga moom xam naa ne. pare naa mu toll nii pare neex na de. waaw xaar bés rek. waaw. cey làmb maa la ko wax. daa mel du yomb de. ku tardé loolu. tardé nga rëy. du yomb du yomb. <laughs> waaw. ana ma seen. mu ngi naan si oto bee. oto ban. oto bi ndooy a xewle waaye yaay mag yi ndooy waaw mais maa ngi ñëw de yaay kilifa ak ndooy waaw bisimilah ci ma li tax nga jógee Ndakaaru ñëw ba fii ndooy yaay kilifaam ndooy bu xewle rek yaa xewle waaw loolu dëgg la moom parce que yaakaar naa ne nit ku ne am nga ko wóolu te defe naa sa ànd ndooy mu ngi bëgg a yàgg te saa su ne mu ngi gën a bees di gën a ratax di gën a dëgër macha allah yàlla na ko yàlla gën a sàmm looloo tax nga taal sa oto Ndakaaru ñëw ba ndaayaan tey non ndooy xam nga suma rakk la dèjà taawam bu góor ko tuddee waa xam nga xale bi léegi xale bi léegi màgg na bay doxi soxlaam voilà exactly waaw noonu demee ndoy moom suma rakk la waaw sama rakk bopp la quoi waaw sama rakk bopp la. sa rakk bopp moo tax tey nga def sa trait militaire. moo tax tey def sa trait militaire. jóge Ndakaaru ñëw ba fii. waaw non bisam suma bés la man sama may combat di def ay un mois quelque da def suma kër deux mois am na combat yoo xam ne sama kër da koy préparé trois mois quatre mois yëpp sama kër lay nekk. voilà xam nga kon tamit maak moom benn lañ quoi kenn nit lañ. mais samedi arène nationale nar naa tam metti de parce que démb damaa gis Modou loo ñëw dar Franc yow tey nga ñëw dar ki nga xam ne ni moom mooy Tyson 2 mel ni kon defan bi nar naa nar naa wex de. ah man ndooy ndooy ndooy ndooy ndooy mooy man may moom jàmbaar loolu moo amul xel ñaar si combat bi dafa mel ni jour may dem di bëri ci roi des rek. loolu la loolu la toll ci man waaw ah, man jàpp naa combat royal la ñuy bëre. combat kon ñu bàyyi la ba nga wàcc. léegi léegi incha allah ñu yeggale waxtaan wi. ay ca mbër. singa. ay nga. séeri xuja. waa gis nga. borom mbaaw. <laughs> ak fan. Tiwaawoon Pël non fële Lagros. <laughs> ñëw naa Lagros mais ana Souleymane Faye. Zil Zil Faye ba non kenn du ko kooku sama waay la Souleymane Faye yoo xam nga yàlla yàlla yokk fanam. waaw kooku moom. ma père la suma père baax sax waaw keroog ma bégal bu ma bégal ba léegi waaw mu ngi fi jógee tegee ayca ayca loolu ni fii tey waa nun dara moo nu yëngal rek ndax wolof yaa daa wax ni euh, kala lax jaay lax lekk nu mbër moo xewle balaa dem Dakaaru nag in ñëw ndayaan jàppale ka barka téere maam yàlla noo ko man noo ko ëpp doole kii pour mu daanu dañoo laaj autorisation neexal nu barka rasulilah fara mën na daan Moussa góor doxul jaama. sey loolu ol. waa mais ol. Kobe eh, naka def. yaa ngi naan sa ndox de. waaw waaw waaw waaw yaa ngi yaa ngi sa jàmm de. waaw maa ngi ci ma jàmm maa ngi maa ngi directé Ndayane. te Ndayane baa fu ñëwee dëkk ba sedd la foog la naanam ndox. lekk aw jën. lekk aw jën waaw lakk na yabay ba pare benn dem ñu may leen si nongum bi. nongum bi waaw pour comme ça benn demee yéen mën see baxal. waaw mais ba nawet bi ñëwee naa bare laa la okkatu de. dana joxe réew. mais nongum mais fi feeñ. mais tey loolu lan mooy tànk yi fii. tey tànk yi li koy ala yëngu li koy yëngal moo ko ëpp doole tey jii alaaj ndooy doomi lébu la tey jii nun tam aussi ay lébu lañu tey jii alaaj ndooy ba ootee bés ba baa xamante ne nii tey jii club lébu daa si war a teew tey jii kara ka kara doomi tefes war naa la mën a ñëw si bésab alaaj ndooy nu kontaan si déplacement bi bi yéen def kontaan nanu je vous en prie quelque chose absolument tànk ndaayaan. non suma rakk moo xewle ñëpp suma rakk Tyson 2 moo xewle ba pare yow xam nga ni gàmbi nga ma fekk jaaruma pikin dama wàcc si njër ak jubal si fii dam ko defar surprise lii laa bëgg pikin di mel nii waaw tey kon kii mun naa la ne si relève Pikine yi la bokk moom Tyson 2 bii dégg nga favori bi favori bi nag jox nañ ko lépp franc su laajee Gora Sock amul lenn lu mu góor a Sock foofu rek laa bëgg mu bàyyi ci xel kii kii mooy suñu relève ñun na la man li ma koy dénk mooy na laaj a Sock lan la ëppalee Gora sok kii da koo manipuler manipuler ko manipuler Garga 2 dañoo jël favori yëpp jox ko nañ jël mais billaay maa ngi ciy woo Pikine waa di ci woo département Mbour yëpp ñu ñëw taxaw suñu frère man lii laa xam. teewaay Eumeu Sène ak soq xol sedd lii lii buñ koy def dina yéex ngay gis mbëru Pikine bu daanu booloo bi buñ koy def man dam si kontaan damay sawar waaw Eumeu seen dëggool ma tekki ngemb mooy tax ma bàyyi ko boo yi li ñuy def nii ku koy def dama lay topp ba nga tekki ngemb man lii laa xam. ñu nekk benn booy yi am combat tamit maa ngi leen di ñaanal yàlla may leen ndam ku mel ni Ama Balde booy ñang Pokola booy yi nekk si Pikine yëpp xam nga non Pokola moom damay bàyyi noonu parce que maa ko tëggal waaw Pokola maa ko tëggal waaw maa ko tëggal moom xam nga moo ko booy ñàkk jëriñu la waaw que le meilleur gagne di la nuyu bu baax waaw di la ziar non dem na tukki dañ ko utal keneen. rëg-rëg moo ko yóbbu Espagne may may dolli ci wax lu mel noonu boo Papa Kane numéro 2 comme magam yóbbu na ko man bugguma ñu may xamee ci ay coow gis nañ ma may wax nii rek mais damay wan ni rëg-rëg su ma rakk na ak suñu avance nañ ma delloo suma xaalis. booy bi daa yóbbu seen xaalis. yóbbu na suñu xaalis. ñaata. deux cent mille laa jubóog moom joxuma ko billet xaalis mu weex tàll laa ko jox. ba mot sëkk du dëgg dégg nga rëg-rëg nee na ma dina ma booy bi na ma jox sama dina ma jox rëg-rëg mais lii bu leen dalati booy dem ak avance su jaambur balaa ngay dem joxal ki la te xaalis jox la man ay yóbbu ma ko si yoon nag topp ma ko ci dara na ma jox sama xaalis rek laa bëgg waaw mais yóbbu ma ko si yoon du ma ko yóbbu si yoon du ma ko wax lu ko métti mais avance su jaambur na ma ko dello parce que xaalisu jaambur laa yor. soo yóbbu xaalisu jaamur balaa ngay dem da ngay delloo xaalisu jaamur loolu laay wax quoi ma koy wax rek rek jërëjëf. soq bëggee naa la. waaw bëggee nañ la Babacar ñu lay. félicitations. merci merci. waaw naaj kay ñu ngi lay bëggee bu baax. bilaay bari suñ tubaab. am bu wér a kay. waaw sant nañ. ma gis la ndaayaan nga ñëw ëmb Tyson 2 yàgg ama seen loolu lan lay wane. waaw avant tout dañuy santaat suñ tubaab rek. dool leen santaat suñu Tuubaa bu santaat suñu Tuubaa bu wér Tyson 2 suñu doomu nday la suñu xarit la drapeau bi ñuy porté moom lay porté le 19 ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex defal ko ndam ndax champion la te doomu Pikine la comprendre nga te Pikine dañoo am ci moom yaakaar comme niñ ko amee ci Sokh ci Eumeu Sène Ama ak Boy Niang ak ñëpp ndaanaan la ndam bu nekk indil na ko waa Pikine kon li may wax damay woowaat waa Pikine rek ñu génn le 19 jàppale Tyson 2 suñu borom defal ko ndam ci barke Yonent bi kon sam samedi li ñu gisoon sa combat ci mbooloo xa mas nañ koo xaar samedi stade wala boog arène nationale. yàlla na raw yàlla na Pikine waaye génn mu raw loolu barki Serigne Saliou parce que doomu Pikine la te champion la ndam bu nekk indil na ko waa Pikine damay wax waa Pikine ni leen Tyson 2 doomu Pikine la te champion la ndam bu nekk indil nañu ko biir Pikine na waa Pikine yëpp génn jàppale ko te xam ni xam nga avenir u Pikine la. tey avenir yi dañ leen war a téye dañ leen war a soutenir dañoo war di sentir waa Pikine ci seen ginnaaw moo yombal xare bi yàlla na ko suñu borom defal ndam ci barke yonent bi ñun Pikine moo dee suñu xol lépp lu far Pikine rek ñun fa lañ far képp ku bëgg Pikine rek ñun njaw lañ bëgg xam nga képp kuy défendre drapeau bi rek ñun dañuy nekk sa ginnaaw di la gunge comprendre nga man booyam laa tey def na ci làmb loo xam ne defuma ko ci comprendre nga muy ndaanaan di champion kenn naata ablew ko mu ngi bëre xale xam ne tamit ndaanaan la champion la mais ñun Pikine moo xol Tyson 2 lañ am droit faral moom lañ am droit ñaanal yàlla na ko Serigne Touba defal ndam ci barke Yonent bi kontaan ci yow waaw jaajëf gaynde jaajëf sama jarbaat la man maay yumpaañam dafa baax dama yore sama restaurant su ma ñàkkee courant su ma ko ne aw ma courant mu yëkkati mu jox su fekkee sama alal mu yëkkati mu yóbbu ma koy wër fu ma ko seene naka tay zonto mu ne ma maa ngi ñëw kii day am si kantanu yàlla parce que sëñ Fallou Mbacke kii juróom-ñaari sëñ Fallou laa ko boole day am ndam xanaa da nga am kii baax na sama papa da daan bàkku ñu di ko wax Daouda Ndour doomam mu ngi fii man làmb moo ma intéressé ak football mais leneen intéressé wu ma mais kii jàmm rek lay am. Franc loo koy wax kon doo am dara de xanaa. Franc na toog rek di xaar ab bu ñoree ñu jox ko ko bu lekkee ba pare mu raxasu dem tëdd te xam ne pare na kii sama lépp la. parce que Serigne Fallou. fu ma ba ñëw taxaw. billaay billaay ku baax la. man de laa koy wax. xas. dama koy saaga sax mais du saxat ku baax la yal na ko yàlla defal jàmm. <laughs> kii li yaayam sonn ci at moo tax li mën na ñàkk bés bi day ñëw. wallaahi force day ñëw. ci Tyson 2 bon Tyson 2 euh, je pense que ne ñun dañoo organiser wu tellement si combat bi lu leer laa la wax de yéen a ngi may dégg promoteurs yi nañ préparé xam ne ñun yoruñu mbër mu ndaw te bu ñu duggee Dakar samedi dinañ xam ne waa Ndeyaan mobilisé wu nañ combat bii du comme bokkul ak combat yi de du ko ay combat ay dix yooyu noonu de Ndeyaan gi de dem Ndeyaan gi yëppay dem ñun yoruñu mbër mu ndaw yoruñu mbër mu ndaw dañu bëgg a xam ne promoteur yi ñu xam ne waa Ndayane yoruñu mbër mu ndaw te samedi gi nañ leen prouvé ne yoruñu mbër mu ndaw dañu war a dépassé fii ñun dañu war a dépassé fii kii warul ne fii di béré ay ay yenn solo yow la yow looy wax ci bés. cest à may wax mooy di nuyu ñëpp euh, di di gërëm ñëpp mobilisation bi rafet na supporters yi fan club bi yëpp mais ñuy wax ne dañu la jour du samedi population Ndayane population Ndayane dañoo mobiliser wu si ce combat lii toute la jeunesse est derrière Tyson 2 parce que ñun dañu xam ne dañu yor mbër mu am talent combien de fois dem champion médaille d'or représenter équipe nationale koy pourquoi pas Tyson 2 mu toll si stade bi nii raison pour laquelle la jeunesse de Ndayane ils ont mobilisé pour le samedi ñu wane ne Tyson 2 il y a une forte bu fekkee ne lamb supporter kese mooy tax mbër mi avancé kon bu samedi waa waa Dakar waa Sénégal dañu xam ne Tyson 2 am na supporter bu mat sëkk pour pour mu mën a dem si kanam. Tyson maa ngi lay ziar. waaye maa lay fay Babacar. ba am nga jàmm. am naa jàmm bu baax a baax. tey day biñ ñëw fekk la si ndaayaan yaakaar naa ne mobilisation biñ gis fi doy na waar si mbooloo ak ay nit ngay def lu mel ni say mbokku génn lan la lay maanaam loo ciy yëg. non li ma si yëg kontaan rek. kontaan li moo lay wan ne stade dafa war a fees bu soobee yàlla hmm. waaw. dina fees. dina fees loolu ma koñ man maa la ko tiitoo franc parce que moom parcelle la dëkk. non tiitu ma franc. ci mbooloo. non tiituma loolu. ndeyaan bu ñu ma yebee pikin yeb ma rek doy na. waa Dias yeb ma. séréer si saafeen si. lébu gi ah ñangal tubaab jalaaw ah géeréw Popenguine Wakaam Bargny ah, waa Pikine Ciki Nduur Nduur Joal Fadiouth ah waa Sinja ñu yar ma bu baax a baax a baax Ah, xam nga ne loolu mënul yomb si Franc non kon daal la nga waxoon yaa nga ca ba tey parce que moom mi ñu gis démb gis nañ ko ci asiko yi muy woy alléluia yaram wa tàng lool mu ñaq ba tooy xep. waaw moom bu ko neexee mu wax lu ko neex na dem fépp na way alléluia yëpp waaw mais am na combat bu rëy waaw samay mbokku njaago yi yëpp dañuy ñëw waaw boo ne Popenguine fii Popenguine ak Ndeyane benn lañ chrétien yi fu la ñuy ñëw di feetu man maa leen di dalal kon am naa fa ay mbokk. Mhm. tey su ma ñëwee ci mobilisation bi gis tey Eumeu Sène sol dàllam ñëw soq ñëw Pape saar ñëw ma dégg Eumeu Sène mu ne ma tudde nga ko sax doom sa taaw moom nga ko tuddee sa diggante ak Eumeu Sène boobu ak teewaayam mook Pape Sarr ak soq lu muy lay servir. non loolu lu am la loolu moo lay wan ne pikin benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Pikine ñëpp jaama laa fa am ñëpp laa mbër yëpp laa seexal jaama ku ci mel ni ñoom Ama Balde Boy Niang ah Eumeu Sène ñëpp dama am ñoom jaama mais bu ñu si jàppee dañ si war a jàpp bu ñu si jàpp dañ si war a jàpp waaw waaw. mais teewaay bi waaw pël loo ko bëgg a laaj waaw. ne na da dugg parcelle wala duggaat luy xew la 19 pël la laaj lool. parcel dama fa war a dugg duggaat fa parce que parcelle li ñëpp di war fa la nekk. mooy lan. ah xamoo ko. roi des arènes. waaw man nag dama fa war a dugg duggaat fa. maanaam ça veut su ma la déggee kon boo paree fii dangay ngay continuer biir parcelle. waaw maanaam li tax ma wax la loolu mooy xam nga tey jii làmba boo koy def tey da ngay ñaan yàlla nekk roi des arènes waaw moo tax mbër man su ma nee titre Franc kon xanaa mbër yi ci kaw man du ma bëre ak ñoom ah kon Franc amul dara lu may tiit si moom wala dara lu may ragal ci moom du garant yaa ngi fi garant yi Pikine ñoom Pape Sarr ñëpp a ngi fi kon kon ñoom ñooy mobiliser gars rek mu fees loolu la de man bàyyi naa ko seen loxo waa Pikine dénk naa leen sama loxo waa Ndayane dénk sama loxo mais nag géew ba ñoom Pape Sarr duñ ñëw de kaw la ñuy toog de. boo déggee ma wax loolu xam nga Pape Sarr ku ko xam xam nga ko si mobilisation. xam nga li muy defar mbëri Pikine yëpp. man foofu laay waxee. tey géew ba Pape Sarr du dugg man maay dugg mais ñaata victoire la andil waa Pikine. ah Pikine andil naa leen 17 victoire. man sama bu ma Pikine laay ngemboo. maanaam pël nee na ba tey sa état ah pël état bi nga toll. daa jàpp ne waroon nga dépasser étape bii lan moo tax ba tey mënoo bëre fii mbër yu mag yi nekk. Arena Tour gis nga Arena Tour 2012 la ah man maa fa def trois man maa fa def 6 victoire si benn année kon mën naa ne am na ñoo xamante ne maa ngi leen fekk tay si am bul faale ba léegi amaguñu combat kon dama si sant yàlla man tardew ma c'est que mbëri petit góor bi moo nekk mbër moo nekk loo xamante ne dafa metti dafa lu metti la foog nga xuusal sa bopp bu baax. waaw loolu moo tax nag fi mu toll nii gars yi jóg nañ ñu ngi may jàppale. ñu ngi mobiliser te loolu dañu koy def dañu koy am bu soobee yàlla. bu ma demee dem parcelle parce que dem naa dem parcelle ma gis mobilisation ba fa am Modou Lo Modou Lo génn le roi des arènes Papa Sow kenn desul ñëpp nekk derrière kooku tey tamit ma gis lu mel noonu fii ama seen ñëw soq ñëw mel ni kon affaire bi enjeu bi nar na metti di samedi dee. day metti doon na metti mais day gën a metti. waaw xam nga lu tax. parcelle bi ma fay dugg góor a ñu mu daan àndal. ah. gàllankoor wax ma àndal. kii ma bëreel fi laanu àndanaator bi parcelle la nekk. waaw mu ngi noonu kon tey jii amul dara loo xam ne dama koy tiit si Franc wala ma di ko ragal si Franc waa Ndayane Popenguine Pikine dañu gën a mobiliser bu baax a baax a baax gisoo sama gars yi ñoom Mouhamed Otis ñu ngi fi ñëpp ngi fi ñoom Omar jóge ba Sali ñëpp a ngi fi waaw kon nag dañ may gën a yokk jom waaw. gis naa fi sax léegi benn soxna wax na léegi fecc na fecc yu doy waar. am na lu mu wax si yow léegi mënul ñàkk kooku mënul ñàkk kooku man su ma woowee sax damay taxaw lu may dem dama koy tooñ di ko def lu ne waaw kooku suñu jigéen bu baax la nag mbisin waaw euh, soq mujj a bëri arène nationale arène ba bari woon mbooloo trop mu daan gàmmu géey tey nga war fa demaat di beneen doomu Pikine loolu du nekk pression lay doon si yow wala motivation lay doon si yow parce que sook moo fa mujj ci grand combat daan non soq sama doomu ndey la bi rek la may aal naw ma aliyet bi rek comme ni mu ko defee Pikine ñëpp ñëpp mobilisé waaw ubbi na bunte yi nu dem daan rek jël bu yomb ta ñëw waaw. loolu laa gis. Mhm. man wax naa la ko euh, keroog. wax naa leen pokaar dinañ génne combat bii. wax naa la palaagi yarankay bi nga ñëwee laajtew ko yëppay dem fu mu kor fu ne fu mu kor fu ne du xëtt day ñëw rek waaw. gaa yi wax ne mooy favori laajoon naa naa la ko laaj ba tey nañ gaa yi ne nañ mooy favori de oh, déggoo dama naan ndaayaan fii dama daan ñëw am na kër kër papa Moussa Gueye sama papa Moussa Gueye yàlla na ko yaaxaa aaj na boole ko mboolem jund dama fa daan andi nag yu baree bare yi kon nag sooxo bu waxee man maa ko gën a mbapat instant yi majaay yi ñoo fi nekk rek fara man maa ko gën a mbapat li ma jël si mbapat jëlu ko dem équipe nationale présentel Sénégal fu ne ah yi ci côté doole am na ñuy wax ne mu lëpp doole. waa ñooñu dama leen di bàyyi ak li ñu wax rek ba jour ba rek bu ñu sumaku suñu sumakoo dinañu xam kii gën a liggéey dinañu xam kii gën ki kii ëpp doole dinañu xam kii man li may wax du ay mbalak moo tax ma di la ko wax waaw man waa ndayaan dañu ma yeb bu baax xam na ma li may xaar waaw man bu may dem bu may dem kuloo ba may dem paay dañu may yeb xam nga ndaayaan pikin ah samay comme fii laay préparé ma dem paay waxam li ñu ma wax pikin fa laay boo dem ah loolu rek saa yi doy na te gars yi supporter du ñu def ay violence amul du ñu def violence dañuy dem violence du am maa ngi wax supporter li ma lay wax bu kenn soxla nu fa xeex man maay dugg si géew bi xeex ak Franc waaw te dama bëgg ngeen jàpp si lool bu baax a baax a baax. combat bi xeex beeg bëri bu la ci dàqal. bu ñëw rek baax na parce que booy dem guerre lépp ngay préparé waaw lépp ngay préparé. bu xeexee baax na bu bëree baax na. bu bëree baax na bu xeexee baax na bu bëggee sax ko biir parcelle. waaw démb moom fi may jeexale ak yow démb ñëw na ñu jël open press am ba ñuy jeexal waxul ak presse bi mu jaar noonu dem xaw ma nag lu mu lay nëbb est-ce que loolu amul lu mu lay nëb ba tax nangu la wax. moom dafa waroon wax ak presse bi rek parce que presse bi ñooy siwal lamba yi tey de bu jëree mba bu jëlee mbapat presse bi ñoo koy siwal kon nag dafa war a wax ak presse bi waaw loolu mooy yoon. ñun presse bi presse bi la ñu am ñoom ñooy ñooy wane victoire fii boo demee ba états uni ah ña ngi seetaan yi. ñu ngi seetaan seen site yëpp kon ñu dañ ñu war a respecté di wax ak ñoom. maanaam ñu respecté presse bi. ñu respecté ñu bu baax a baax a baax. kon li mu def démb yow da nga koo rafetluwul wala. tey Sénégal bu jëloon coupe d'Afrique presse ñoo koy siwal tey ku ñu siwalul di nga est di nga siw ah di nga toog sa benn ruux dañ ñoom ñoo siwal gars yi gars yi di siw ah tey zone deux bu waxee tey suba Dakar lay finaani kon presse bi ñoo lay siwal bu dul kon presse bi kenn duñu xam bu média amuloon da ngay doo am na mbër yoo xam da ngay dox ba kenn duñu xam waaw. am na solo kontaan si yow. waa li may wax mooy. waaw ñi may sant ñooñu ñi xamante ne dañuy jàpp ci combat bi baax a baax a baax ku ci mel ni suñu maire Mansour Thiandoum da ciy jaax bu baax Sarlo nday Seen Ibrahima Pouy maire jaas bi Mouhamed di ko wax ñoom Patis bàyyiwuma kenn ñëpp dañu si topp bu baax a baax Xaadim Bala sama waa yi waaw da jàpp bu baax a baax a baax a baax Ibrahima Pouy Ibrahima Imew bu lay ñooñ dañu si jàpp bu baax a baax a baax Samba Thiom xam nga fii la nekkoon di bérék nun si jàpp bu baax Arouna Sène di ko yow ñoom dañu dañu si jàpp sama combat bu baax ku si mel ni Veka ma yónnee naw ma xaalis bu barey waa ñoom jeere xam nga gars yi dañu si jàpp bu baax waa atu làmba ji di si waa groupe fan ak euh, groupe fan sa kër bi Tyson bi waaw waa atu lamba ji si mel ni Cheikh Diop ah maam aliw gars yi dañu si jaax bu baax Moussa si maire de pikin waaw jàpp na si bu baax a baax a baax suudu dañu si jàpp bu baax a baax a baax Cheikh Diop docteur Macoumba Diop na si jàpp docteur Macoumba Diouf juuf moom lañ tudde drapeau bi drapeau bi meeru Lac Mbengue meeru Lac Mbengue na si jàpp bu baax mhm. waaw ku ci mel ni xuja xuja yoone na mu xaaj bu bare ama seen waaw dañu si jàpp mu ne combat bi combat da si jàpp bu baax a baax a baax a baax waaw Abdou Salaam ah sëñ Mor mu sëñ Mor Tall oto bi ma indi fii sax moo ma ko jox waaw dañuy mbay tolloo waaw Pape Sarr xam na ko bu baax mbay tolloo waaw mbay seen seras maam Mor sek combat dañ may may xar yu bare waaw kon daal neen ñëpp rek non ñëpp ak moom laay damay wax ñoo kii ñoom Issa sooxo gis nga ñëw na sooxo déplacement dem ba Pikine bi mu bëree yaagul dañoom foo Fourouche gars yi dañu si John Sina xam nga rek suñu gars yi am na ñoo xamante ne xam nga dañu mënta ñëw quoi waaw loolu la waaw mais ñëpp ñëw nañu ñoom bébé Tyson ñëpp ñëw na Issa waaw ku si mel ni Moussa Ndoye hmm. xam nga gars yi dañu si jàpp ñoom Amadou Diom Djibril Seck Mot Faye ñoom Fourouche ah ñoom Ibou ñépp dañu si jàpp Pape Sarr déplacé ba Pikine dañ si ba jàpp bu baax a baax a baax. an sama leen copain bi ñoom canal ñoom Pape Dëj Pape Dëj nag dafa bàyyi itam koy fàtte. waaw te jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax kon waa Ndayane man aw ma seen fay. waaw ñoo ma puus ba ma yëg sa fii média yi nag ñoo nu puus ba ñu yëg sa fii waa ndayaan waaw kon nag ñun dañu si kontaan bu baax a baax a baax a baax ñëpp dañu siy jàpp Mouhamed Otis ah jibi Jib ah amadu Sindia ñoom ñëpp dañu si jàpp waaw ñoom Valde sama doomu nday waaw ah ak Isaaxa Diop ñooñu ñëpp dañu siy jàpp bu baax a baax kon ñoo ñu gën a jàpp rek waaw mu waa ñiti mbaar maa leen di woo si combat bi bu baax a baax a baax buy gi gonaas darkese gi bàyyiwuma kañ waa géej waay waaw Aziz Zador maa ngi koy woo si combat bi waaw Aziz waaw maa ngi koy woo si combat bi waaw Mouhamed Ndaw Tyson sama turandoo maa ngi lay woo si combat bi waaw mu ngi noonu man kon kontaan naa bu baax amul lu ma kontaanul xam nga tey ji waa Ndayane tey hmm, dañu jàpp si combat bi ñoom ñëpp ñibbisi nañu ñoom ñëpp a ñibbisi nañu fi mu toll nii comme gaal yëpp a fi combat bi la ñuy xaar combat bi dañuy aj gaal yëpp waaw ba jour boo waa Ndayane xam nga rek ñëpp aj gaale dem stade waa loolu laa bëgg parce que suñu amee victoire fii laa koy andi na ñëpp aj gaal waaw ñu ñëw ñu dem stade feesal stade waaw ñun combat bii dañ si war a gis suñu bopp ñoom duudu duudu faadi naa ko mbay caace waaw gars yi dañ si sonn bu baax a baax a baax waaw jaajëf kontaan naa bu baax maa gën a kontaan Congress! Congress!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 téléphone bi c'est le 77 219 99 99 le 77 219 99 99 Serigne Daouda Seck sa coono daal di jeex.